bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam subhaanaka laa ilma lana illa ma allamtana innaka anta alalimu alhakim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 waaye lu jiitu loolu nañu sant buur bi tabaraka wa buur ba ñu xéewalal mu di ñu dottil xéewal ya nekk fa moom te du jeex du xaaj te doyowu ko dara xanaa du daf ñu ko yéenee ñun doomu aadama yi ñun mi di jaamam mu doon xéewal yi nga xamante ne mu ngi ñuy wax ci alquran la in shakartum la azidannakum bu ngeen ma santee ci xéewal yama xéewalal ma dottil leen ko gën kaa yokk ma gan leen xéewalal la nga xamante ne moo kawe seeni njort ba tax na tey bi iznillahi subhaanahu wa taala réew mi fm 97.5 tey mu fas yéene leen jukkil leen li nga xamante ne mooy lañu fas yéene ànd ak yéen ci waxtaanu fajar ci waxtu wi mu nekk loo xamante ne jullit bi war na ci war a manqué la nga xamante ne mooy la koy njëriñ ci dund àddina ba muy dund waaye mu doon la koy njëriñ ëllëg yowmal qiyaam mu doon aaya ba méngoog suñu tem bi muy aaya ba nekk ca suuratul aala fa buur yàlla tabaraka wa taala di waxee ne fa dakkir in nafaati dikra sa yadakkaru man yaxsha waaye nag way tajannabuha al asqa alladi yasla annaar alkubra thumma laa yamuutu fiiha wala yaxya buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii di wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko fa dakkir in nafaati dikra del fàttali waaw del fàttali ndax fàttali da di loo xamante ne njëriñ dong la fees waaw fàttali da di lu am njëriñ lool su ko defee sa yazakkaru ma yaxsha nit a ngi nii ki war a mën a fàttali ko koo xamante ne làmboo nag ragal yàlla waaw kii ràmboo ko ragal yàlla mooy kii fàttaliku ca la nga xamante ne mooy la alquran joxoñ yonent tegtal ko ci sunnam yi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na mbokk yi xam ngeen ne alquran da di téere bi nga xamante ne bur yàlla tabaraka wa taala moo ko wàccel yonent bi sallallahu alayhi wa ngir yonent bi war ko war a mën teg ci pénc bi xëytam narse war a mën a gëstu jàngee ci ba tax na honneur boobu yàlla jox ci téere bi ba tax na bur yàlla ñu duñu wax ci sotu saad aya nuuf baada audu billahi min alsheytaani arrajim kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadakkara ulul albaab mbokk yi yenn jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot bur yàlla tabaraka wa taala moo ñuy baaxee téere alquran ba ñu yore ci dundu ba ñu nekk di ko dundu mu nekk téere ba jógee ko fa yàlla buur yàlla wàccal ñu ko yàlla ñu si jox autorisation mu ne ñu kitaabu ndadi téere bi nga xamante ne àndal naaxu ñoo ko ci yow ilayka mubaarakun ngir mu nekk ci yow lu am barke téere bu am barke la li yadabbaru ngir ngeen saytu ngeen def recherche ayatihi kawte fi fa nekk waaye nag ngir wali yatadakara ulul albaab borom xel yu yanj war see war a mën a niitoo war see war a mën a xàmmee war see war a ràññee la nga xamante ne moom la ne loolu lañu ñu war a nekkee ci seen taxawaayu dund ba tax na yonentu bi sallallahu alayhi wa ci njàngaleem yu matale yi ci njàngale yu mucc ayib yamu jàngale xeet bi salawaatu rabbi wasalaamuhu alayh mu daal ñu tegtal lenn ci jumtuwaay bi nga xamante ne moo nekk ci jëmm doomu aadama ñu di ko duppee la nga xamante ne moy xol buñ ne xol nag ñu ne mooy jumtuwaay bi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa xamal na yonent bi nekkoo ci xadiisu yonent bi salaa sallam qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa inna quluuba bani aadama kullaha bayna asbaciini min asaabi'i arrahman ka qalbin waaxidin yusarrifuhu xaysu yashaa summa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam allahumma musarrif alquluubi sarrif quluubana ala taatik yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi moo ñu baaxee ci maana xadis bañ leen jàngal ni yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam inna quluuba bani aadam kullaha bayna asbaayni min asaabi arrahman nee xolu doomu aadama yi moo ngi nekk ci diggante baaraamu yàlla ni benn xol nu mu nekkee ci loxo yàlla nee na inna quluuba bani aadama kullaha bayna asbi'ayni min asaabi arrahman xoolu doomu aadama yi mboolem seen yonentu bi nee na yàllaan ko téye ci loxom mu ngi tegu ci baaramam comme ni la nga téye ci sa loxo di ko wulbati say baaraam nu mu mel ci yow noonu la xolu doomu aadama yi nekk ci diggante baaraamu yàlla yi mu nekk benn xol boo xamante ne da koy wulbati rekk ñépp toppandoor jëmale ci sens ba yàlla wulbati côté boobu bu yàlla wulbati xol jëmale ko ci sens ba mu koy yóbbu foofu la xol yi yëpp di bàbbeeku jëm ci côté boobee ba tax na yonent bi ne yusarrifuhu xaysu yasa moo koy jëmale di ko wulbati jëmale ko fu ko neex moom yàlla ba yonent bi waxee xadis bi nag topp ci mu wax ne moom yonent bi salaa sallam thumma qaal rasulullahi salaa sallam yonent bi daal di toftal ci kàddu gi mooy ñaan ba mu waaja ñaan ni mu ne allahumma musarrif alqulub buur yàlla yow mi wulbati xol yi yow mi wulbati xel yi maa ngi lay ñaan yàlla nga wulbati sama xol jëmale ko ci topp la yàlla booy wulbati xoli yi sama xol di ci wulbati ko waale yàlla nga def sama xol bi wulbati ko jëmale ci lépp li nga xamante ne day doon la lay topp yàlla nga ba bañ a wëlbati sama xol si ñàkk laa topp yàlla nga wëlbati sama xol jëmale ko ci topp la yàlla nga def sama xol mu doon xol buy topp say ndigal waaye muy sore lépp li nga xamante ne ay tere lañ mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot xol boobu buur yàlla mu fassiroona ñu ne suñu borom tabaraka tudd na ko ci alquran téeméer ak fanweerelu yoon waaw téeméer ak fanweeri yoon cent trente fois la yàlla tudd qalb xolu doomu aadama ci téere alxuraan te ñu nit réew mi fm ñu nit ñu fas yéene leen dégtal lenn ci xol yooyu ak seeni doxalin ak seeni melokaan bu dee waxtu bi may nañu ko bëgg nañu leen jukkil njëlbeenu xol ba yàlla joxoñ ne xol bi mel nii nii lay nekkee lii moo ko tax a jóg su ko defee bu fekkente ne waxtu wi may nañu ba ñu indi juróomi façon xol yi nga xamante ne alquran tuddal nañu ko ak seeni màndarga su ko defe ñu taxawandi noonu ñu taxawandi foofu incha allah bu ñu del sewaat beneen yoon ñu daldi si toftal yeneen juróom ya ci des incha allah mbokk yi zakara allahu taala fi l quran anwaa l kasrate min al quluub minha bindkat bi nee na buur yàlla tabaraka moo ñu tuddal ci téere bu ñu yore di alquraanul karim ay façon xol yi nga xamante ne doomu aadama ko yore mu di dund ak moom bokk na ci xol yooyu bu ci jiitu mooy alqalbun salim alqalbul salim xol bu mucc xol bu laab moo ne yàlla moo ngi ne ci alquraan yowma laa yanfacu maalan wala banuunan illa man ata allaha bi qalbin salim bés pénca di da bés bi nga xamante ne amul kenn la alal di njëriñ amul kenn ka doom di njariñ amul kenn ku leneen di njëriñ lu dul ko dikkee fa yàlla andiwaale xol bu laab kon bu fekkente ne dikkee fa yàlla andiwaale xol bu laab mooy la lay génnee ci merum yàlla ah kon kenn ku nekk war ngaa jëm fa yàlla yóbbaale xol bu laab ñoo ne qalbun salim xol bu mucc xol bu laab xol bu set mooy xol boobu la yàlla wax ne yawma laa yanfa'u maalun bés bi nga xamante ne alal du njëriñe wala banuun doom du njëriñe illa man atallaha bi qalbin salim lu dul ka dikkee fa yàlla andiwaale xol bu laab maanaa aaya bi ka ko firi mooy mu ne ñu ay yawma laa yanfau maala walbanuuna ahadun min ibaadi illa man ata allaha bi qalbin salim min alkufri wannifaq wal razayla wa razayla waaw nee na aaya bi mooy la tekki keroog bés penc amul kenn kuy dikkee fa yàlla kii ñëw nga doom ku mucc ayib lu dul danga àndiwaale xol bu laab ndax bés la boo xamante ni alal du njariñ doom du njariñ kenn ci jaamu yàlla yi lu dul ka dikkee fa yàlla ka ñëw ba nga doon ñëw àndiwaale nga xol bu laab sa xol laab na ci weddi yàlla sa xol laab na ci xeetu kiñaan sa xol laab na ci xeetu naafiq sa xol laab na ci xeetu lépp loo xamante ne xeetu mbuusuur la walla xeetu folklore di xeetu caay-caay sa xol bu laabee ci loole kon yow na ñoo wax ne yay ki fa yàlla àndaale xol bu laab ndax loolu la buur yàlla tabaraka wa taala joxoñ ci aaya bi mu ne ñu bés penc da bi nga xamante ne amul dara lay njëriñ doomu aadama bi lu dul ka dikkee fa man yàlla andiwaale xol bu laab kon ñu ne njëlbeenu xol mooy alqalbun salim mooy xol laab xol bu set wa huwa muxlisun lillahi wa xaala min al inxiraafaat mooy xol bu sell ngir yàlla xol bi nga xamante ne yàlla dong nga tax muy exister xol bi nga xamante ne lu dul yàlla dara nekku fa waaye mooy xol bi nga xamante ne mucc na ci lépp li nga xamante ne lu koy lor la lu mel ni la màndil képp ku sorel sax xol ci lu koy màndil sa xol mucc na képp ku soreel sa xol la koy taxale ko sagoom sa xol bi mucc na képp ku muccal sa xol ci lépp loo xamante ne day tax nga taxale ko sa sago sa xol mucc na moo tax mu ne alqalbun salim xol bu mucc ayib xol bu laab waxuwa mooy xol bi nga xamante ne muxlisun lillaahi daa sell ngir yàlla wa xaala min al mu daldi sore lépp lu koy lor ci xeetu màndite ci xeetu toskare ci xeetu lay tax mu di taxale ko sagom xol bi bu sore lii mu duy sellange yàlla dong ci caniveau ya nekk fa moom ñu ne xol mooy xol bu mucc mbokk yi lii mooy xol bu njëkk bi nga xamante ne suñu buntu bay waxtaane xol ya alquran tudd kon ñu toxu dem ci ñaareelu xol bi nga xamante ne mooy alqalbul munib wa huwa daimun arrajuu ila allahi wa tawbihi wa tawbahu lahu wa tawbatuhu lahu waaw nee na ñaareelu xol bi mooy al qalbun munib qalbun munib mooy xol boo xamante ne saa su ne xol boobu day dellu fa boromam day fàttaliku yàlla day nangoo dellu fa boromam delluwaay bi nga xamante ne day suuru yàlla ci lépp day xelaat yàlla ci lépp day xelaati yàlla ne amaana jënt bi ma tiim nii du soo te delloowu ma fa sama borom sama borom mun na ma fi jëlli saa su ne xol boobu daal dafa am kontak ak boromam subhaanahu wa taala mu di ko xelaat ne boromam mun na kaa jëli ci trottoiru suuf ba muy dund saasu ne ba tax na xol boobu day dëkkee di tuub ci ay bàkkaar ya mu nekkoon di ko jëf jamono bu mu nekkee di dund ci jëmm jooju xol wi day am yaakaar fa yàlla day nekk à chaque fois muy am rëccute ci nekkin ba mu nekkee waaye day am mébét ak contentement bu toll nii day bëgg di tuub jëmale ko ci boromam waaye toujours danaan est-ce fanaan tey est-ce bu ma fanaanee est dina yendu xol boobu daal à chaque fois mu ngi dellu fa boromam amul virgil amul seconde boo xamante ne xol boobu du xalaat la nekk digganteem ak boromam xol bii la yàlla wax ne xol bi mooy qalbun munib mooy xol boo xamante ne day dellu fa boromam saa su ne moo tax mu ne wa huwa daa'imun rujuu ila ila allahi wa tawbatuhu lahu xol bi day nangoo reconnaître ne à chaque fois mun naa dellu ca boromam waaye day dikkee di tuub erreur ya mu mu di ko def xol boobu loolu mooy taxawaayam ci jëmm jooju mbokk yi ñetteelu xol bi di qalbun wajil al qalbul wajil wa huwa alladi yaxaafu allaha azza wa jal mooy xol bi nga xamante ne toujours day nangoo tiit ay nangoo ragal xol wi nga xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñuy wax ci njëlbeenu boppu suratul anfal nga xamante ne buur bi tabaraka wa daf ñuy won la nga xamante ne mooy xol bi nga xamante ne dafa nangu à chaque fois muy dellu fa boromam di tuub waaye xol boo xamante ne à chaque fois day nangoo doon xol buy ragal yàlla buy tiit mooy qalbun wajil waaw bu ñu demee xool qalbul wajil mu doon xol boo xamante ne buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi ñuy wax ci bopp suratul anfaal baada audu billahi min seytaani rajim buur yàlla ni ñu ne innama almuminuuna alladina ida dukira allaha wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum imaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun sadaqa allahu alazim mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seeni njaboot buur yàlla tabaraka wa taala mu ngi nii du ñu wax xol bi nga xamante ne mooy qalbun wajil qalbun wajil mooy xol bi nga xamante ne day fuur waaw day jékki-jékki rek fuur bu fuuree ana la ci xelleeku ana la ci ballee ki bëgg a xam nag ñu may nopp ci Rewmi FM 97.5 ci waxtaanu fajar bay jaar ci daara ji ci waxtu wi yàlla nee nañu innama almuminuuna alladina ida dukira allaha wajilat qulubuhum wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum imaanan wa rabbihim yatawakkaluun bur yàlla ne ñu melokaanu way gëm yàlla ñaa ngi nii ñoo xamante ne ñoo gëm yàlla wéetal ko ci nekkinam ak moomelam ak turam yu sell ñi ñi gëm yàlla gëm yàlla wi ni mel yàlla nee na seen màndarga mooy ida dukira allahu wajilat qulubuhum gis nga wajilat seen xol day fuur day fees waaw ida dukira allaha boo leen tuddalee yàlla boo waxee màggaayu yàlla boo leen waxee ne yàlla bindee juróom-ñaari asamaan ak la nekk ci ay mbóot ci ay sekere boo waxee la nekk ci diggante asamaan ak suuf ci ay sekere boo leen waxee la yàlla di wàcce xeetu liitaru ndox ci kaw asamaan si ndox wi di njëriñ ñenn ñi waaye ci coobare yàlla muy lor ñenn ñi képp ku leen wax kawtéef bi ni mel te mu jóge ko fa yàlla ñuy ñaanal suñu mbokk ña loru ci ndox ba leen yàlla sedd ci coobareem ak ci nammeelam yal na leen ko yàlla soppil mu defal leen ko jéggi waaye autorité yi ñu leen di gën a ñaax ñu ngi ci tàyyiwuñu di ko def bàyyiwuñu di ko def waaye nag ko nekk ci diggante xettali ah xettali ko la gën a soxla kon nu ngeen barale seeni loxo ngir xettali leen ci ndox bi leen fekk seen dëkkuwaay nu ngeen barale seeni loxo ñu xeeb ko waaw yéenaa ngi ci waaye nu ngeen ko gën a yokkee mu gën a baax yal ko yàlla soppil mu defal leen ko jéggalaakoor gannaaw si nag yal leen ko yàlla defal ah, teraanga àddina ak xéewalu àllaaxira ñu jaare fa am seen dëkkuwaay bi nga xamante ne ndox bi du leen fa laal waaye ñuy ñaanal képp ku jël ñaqam képp ku jël la ci poosam ak wërsëgam jox ko ñooñu loru yal na la yàlla fay waaw ñoom maraaw yi njiiti réew meek gouvernement ña jël la leen yàlla dënk ci responsabilité taxawee askan bi lépp lu ñu xettali ka toll ci soxla xettaliku yan leen yàlla doolil amin ya rabbal alamin moo tax yàlla ne melokaanu way gëm yàlla ñi nga xamante ne boo di tuddal lépp la aju ci kawteefu yàlla wajilat qulubuhum seen xol yi day fuur fees bay xelli muy xelli ragal yàlla muy xelli xeetu ndox bi nga xamante ne ci seen bët lay jaare waaw yàlla nee na ñooñu ñoy màndarga bu njëkk ba seen xol day fuur jamono bu ñu déggee kawteefu yàlla buur bi tabaraka wa mu teg si ne bokk na seen màndarga yi ñooñu nekk woy gëm yàlla ñi bokk na seen màndarga mooy wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum imaanan wa ala rabbihim yatawakkaluun boo leen alqur'aan seen ngëm yàlla day gën yokku te dañuy doon ñuy wàkkeerlu ci ndogal ba leen yàlla teg bokk na ci màndargaay way gëm yàlla ba yàlla bëgg a wax bi moo ne seen màndargaay ñaaral bi mooy wa ida tuliyat alayhim ayatuhu boo leen jàngalee kawteefu yàlla di alquran dégg ba dëgg dégg kawteefu yàlla zaadatuhum imaanan seen gom yàlla day gëna yokku bu fekkente ne dafa àggoon quatre-vingt-dix boo leen tuddalee yàlla seen xol fuur boo leen jàngalee alquran seen ngëm yàlla gën a chargé wu batterie bi bu dee dafa wàccoon ba quatre-vingt-dix boo leen jàngalee alquran ba di kawteefu yàlla nga xamante ne seen batri ngëm yàlla day daal di chargé wu nekk cent dix moo ci tegu mu daldi nekk cent waaw seen batterie ngëm yàlla day gën a rempli wu day gën a chargé wu waaye yemut ci seen ngoom yàlla day yëkkateku waaye nag rabbi wa ala rabbihim yatawakkaluun waaw ñoom daal dañuy nekk di sukkandiku ci lépp lu leen yàlla atte waaye bépp ndogal ba leen yàlla atte bépp ndogal ba yàlla atte si ñoom dinañ ko muñ dinañu wàkkeerlu loolu yàlla dogal ci ñoom duñ fi nekk di jàmbat duñ fi nekk di jooytu duñ fi nekk di xultu duñ fi nekk ku ne ñu gis la di la wax seen mébitu xol déedéet ñoom daal ida dukira allahu wajilat qulubuhum boo leen tuddalee yàlla wala nga fàttaliku loo leen yàlla seen xol day fees bay tuuru ci seen bët seen rangoñ bi daal dal seen dënn waaye bokk na ci ba léegi wa ida tuliyat alayhim ayatuhu zaadatuhum imaanan alquran bala yàlla jox buñ leen koy jàngal seen gëm yàlla day gën a yokku waaye bokk na seen màndarga ba léegi wa ala rabbihim yatawakkaluun seen borom mooy seen wéeru waaye boo xamante ne duñu sukkandiku ci kenn du ñu wiiru ci lenn lu dut fasani borom subhaanahu wa mbokk yi aaya bu ci tegu mooy alladina yuqimuuna alsolata wa mimma razaqnaahum yunfiquun ñooñu ñooy màndargaay ñoo xamante ne dañuy taxawal julli te astut laleen leen yàlla wërsëgal dañ koy jëfandikoo ci fépp fu yàlla sopp mu doon fu mu bëgg yàlla ne ulaika humul muminuuna xaqaa ñii ñooy woy gëm yàlla yama reconnaître seen ngëm yàlla fa man ñii ñoo gëm yàlla gëm yàlla bu déggu yàlla ne résultat ba ñuy góobee seen melokaan boobu mooy lan laxum ñeel na leen darajaatun ay daraja inda rabbihim fa seeni boroom waaye nag wa magfiratun na leen njéggalaakoor ak sutura ba leen boroom bi di sàngee keroog bés pénc waaye ba léegi bokk na ci laleen leen yàlla di beral wa rizqun karim ak wërsëg bu tedd boo xamante ne ëllëg keroog bés pénc buur yàlla da leen di may xéewal ju toll ni ñu dugg këru xéewal bu ñu naan arjanna mu wone la tax am lii ak màndarga ba yàlla màndarga ña gëm yàlla ñooñu ñooy ñu ràngoo garaat bi ni mel moo ne dañoo am qalbul wajil waaw qalbul wajil mooy xol bi nga xamante ne day gaaw fuur day gaawa fees day gaaw a nooy ci ginnaaw buñ ko tuddalee tur yàlla yi walla ñu fàttaliku loo ko kawteefu yàlla yi xol day daal di fuur ba fees mu jaaree fa wadd ci dënn boromam moo rongoñ bi moo koy manifester waaye bokk na ci boo ko jàngalee alxuraan ngëm yàlla ba mu nekkee day gën a yokku te moone ne kooku du am wéeruwaayu fenn amut lenn la mu yore ci weeru wéeruwaay bulul ci boromam subhaanahu wa moo tax yàlla ne wa ala rabbihim yatawakkaluun fa seen borom mooy doon seen wéeruwaay mbokk yi waxtaan bi jeexut dañoo yegg ci fu ñu war a yëkkati jotaay bi war a jébbal béréb bi ñay joxe xibaar ci nasaraan ñuy ñaan yàlla suñu borom tabaraka wa taala an yarzuqana xusnul allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa ni'man nasir